MAPHATI HAL BICHIRI WAL AMNI WAL JANNA GYENGEN DIJOT YU AMSOLO YI BAYEKO FI KIBIS REVISION TV DANGEL BOSFI YI BILI SABONE BONO PE TEKTI KOLASHI BI MAPHATI HAL BICHIRI WAL AMNI WAL JANNA FI SALATI WAL TASNIMI ALA MUKIMI SUNNA nit ki bootu ak ba def mag suñu borom nag bootu ak magam man benn borom xam bu loo ko du loo ko may mënu leen damaa ko wattu woon ne booy doon ko ne sama borom bopp ko def mm-hmm. booy nga koy defal ngir yàlla dana la ko fayee loo xam ne mënu la ko mënu ko woon lijjanti taw mm-hmm. bari na lu lu mu toll bu dee ab safaan bu daree nit moo ko tegoon lu mu doon rek xoolal la la ko teg waaye yàq sa bopp maa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum lu la dal yàq sa bopp daal di wax afwan kasiiran te sax dalay jéggal ba pare ba ci fàkkatal rek boo ko defee am na benn njuumte boo def loo def lu dul noonu moo tax nga fàkkatal moo tax nit ki saa bu fàkkataloo sax am na lu mu def. donc waaye te yàlla nag wa ya'fuu an kasiiran bu bari sax dina ko jégal doon la ci kon li am solo mooy. dañ fexe ba doon tànn seen tubaab. seen tubaab la ñu tekki ngërëmu yàlla moo la tax di yëngatu. Mm-hmm. isil muridu laa yuridu abada xayra rida rahman mm-hmm. kon bu la neexee sàkkul alal lu la neex. sàkkul pouvoir lu la neex. sàkkul xam-xam lu la waaye na doon loo xam ne ay moyens la yu lay yóbbu ci ngërëmu yàlla la neexee loolu moo la tax sa mm-hmm. sàkkul lépp ba am te sàkku ci lay doon. lii daal mooy li ma ko mën a